am beneen bis yeesu duggaat ci jàngu bi fekk amoon na fa nit ku loxoom làggi am na fa nag ay farisiyen ñuy xool yéesu ba xam dina ko faj ci bésu noflaay bi ba man koo tuumaal yeesu ni ki loxoom làggi jógal taxaw ci kanamu ñépp noonu yeesu ne leen lan moo jaadu ñu def ko bisu noflaay bi lu baax mbaa bon musal nit mbaa rey nit waaye ñu ni cell ci kaw loolu yéesu xool leen ak mer am naqar ndax seen xol bu fatt ba noppi mu ne nit ki tàllalal sa loxo nit ki tàllal ko loxoom daldi wér péng te saasa nag farisiyen ya génn daldi gise ak ni far ak buur bi erod ngir fexe ko reylu ginnaaw loolu yeesu ak ay taalibeem jóge fa jëm dex ka fekk mbooloo mu mag mu jóge diwaanu galile topp ko te it nit ñu bari dégg la mu def ñu ñëw fi moom jóge diwaanu yu yude ak dëkku yerusalem ca diwaanu idume ca ginnaaw dexu yordaan ak ci wàlli tiir ak sidon booba nag yéesu faj na ñu bari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 saak doomu sebede ak yowaana mi mu bokkal ndey ak baay ñoom ñi ñu wooye bowanarses maanaam ñi aytal ni dënnu gi andre ak filip bartelemi ak màcc tooma ak sak doomu alfe tàdde ak simon mi bokk ca mbooloo ma ñu tudde ñi farlu ci moom seen réew ak yuda iskariyo mi nara wor yeesu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 xanaa dafay jëkk yeewu ku bari doole ka ba noppi door a toj këram gépp ci dëgg maa ngi leen koy wax lépp des na ko baal nit ñi muy bàkkaar muy sosal yàlla wu mu mën a doon waaye ku sosal xel mu sell mi deesu ko baal mukk gàddu na bàkkaar ba faw yéesu wax na loolu ndaxte woon nañu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 noonu mu xool ni ko wër naan sama yaay ak samay rakk a ngi ndaxte kuy def coobareeg yàlla kooku mooy sama rakk ak sama jigéen ak sama ndey